salaamaaleykum mbokk yi jamaatul islah ñu ngi leen di bu baax te leen ñaanal jàmm ko sakku si yéen j'espère ñëpp rek jàmm ngeen yëndoo woon ak wéegu yaram yàlla ko suñu borom defal ñëpp rek taxawu leen wala taxawuñu kon si tey xam naa ba tey bi information la benn journaliste féministe bu ñu tuddee Hélène Biton moo ko joxe ñu ngi si wër na réseaux sociaux yi nee na sioniste yi nga xam ne na ñoo fas yéene attaqué Liban dafa ñu bëggee dugg si frontière yi rek Hezbollah repoussé waat leen bii nag nee si benn base bu nga xam ne ne si base yi nga xam ne ne fa nekk moment yi dafa antada ak ñoom seen nee na daal sécurité moo fa amatul sécurité si boppam ndax li ñu tuddee abri mooy bu ay alerte mu amee mbirum sonné yu mel noonu neen missile yaa ngi ñëw fu ñu mën a daw làqatu nee na dañu amatul ba si ñu ngi gisee ba si militaires yi sioniste yi sax dañuy làqatu barab yi nga xam ne ndox yi taa ak ñoom seen fu mu war a jaar yooyu pax yooyu ngay seen ngeen gis noonu nee na ñu daw di làqatu moo ko wax moo wane ne daal sioniste yi ñi génn ngir xeexe fañ nekk suuratul ñu nekk biir Israël en général aussi suuratul ñu ngi noonu yàlla na ñàkk suurate boobu di continuer di nekk si teetu sioniste yi rek incha allah jërë Iran moom xam naa ne Baye Baara maa ngi lay nuyu di leen ziar yooyu itam vraiment mais dafa mel ni ñoom wàcc nañ lu mel noonu ndax boo xoolee opération bi seen kii boobu seen conseil xaw ma naan bi nekk ci gidd te te muy kii Ali Khamenei yabaloon ci président Liban bi boo xoolee moom du mu bi mu dafa def déclaration ni Hezbollah à partir de samedi mën nañ tàmbali opération bi te boo xoolee affaire depuis samedi ci ci euh, ci minuit la depuis samedi ci minuit lañ tàmbali. man jàpp naa ne ñoom pare nañ pour dëgëral te loo rek lañ mën def xam noonu rek lañ mën def parce que bu ñu bàyyee aussi gars yi non tubaab yi mosuñu négocier négociation Israël mosu ko def da nga koy jekku mu tëral ay plan loolu sax d'ailleurs mosuñu négocier suñu négocier parce que ñoom gëmuñu gëmuñu dara liñ lay wax ak li ñuy def ci suñu benn yàquluna bi alsinati maa laysa fi qulubihim ñoom loolu mooy seen problème te am nañ ci señ señ ndax ñoom gis nga fii chaque jour nga gis loolu Joe Biden day taxaw wax li ci suuf ñoom ñu waxaat leneen ba ci waa Israël boo leen xoolee seen diggante ak ñoom ak Hamas noon la woon dañuy taxaw am ñu ñu nangu ba dem ci table négociation pourtant bi guerre bi amee ba léegi ñu ngi négocier ñaata état ñoo ci dugal seen loxo Qatar Égypte Saoudia ak yeneen i réew mais daa tax Israël benn yoon mu xëy ne tey jii noonu mu sax may benn trêve humanitaire jamono yi day toog rek ñu bàyyi garab yi dugg lekk yi dugg naan yi ba fii may waxee yow nii plastique du lekk du naan bu mën a dugg ba tey jii xale plastique ñu ngi ci ay jafe-jafe ba fii may waxee yow loolu loolu loolu donc Israël te boo xoolee ñoom ak Hezbollah ñaata lañ ñaata lañ laalante moom mooy dañu teggi tànkam mais cette fois ci tax mu wuute mooy boobu dañ daan fekk Hezbollah di ko laal ci sekk ak moom. ci territoire am dina Hezbollah leen tax a dugg mooy problème Palestine ñoom nag ñu jaare ki pour toroxal waa Hezbollah dem rek seen njiit Hassan Nasrallah jàmbaar yooyu de loolu nag kooku mënoo ko reyal groupe groupe bu toll nii Hezbollah am jàmm lu mënul nekk loolu mënul nekk ñoom gëmewuñu noonu ñoom ñoom ñoom maanaam xam nga lii a asaar fayu boo xoolee kuréel gii di ahlu chia ñoom dafa am nu ñu ko gëmee ak nu ñu koy dundee lu gën a fort ni ko nit ñi sax di xalaatee yàlla xam na ko parce que ñoom njiit ci ñoom du njiitu falaa falaa njiit ci ñoom dafa am maqaama ruuxaanee ci wàllu ruux bu am doole moo tax laal ko rek dafa mel ni laal nga lépp waaw Washington Post benn journal la bu doon waxtaan ak ay responsable américain mu ne Netanyahu dafa joobaay Biden ne ko Israël bu dee fayu day sori fi nga xam ne Euh, ay kii la ay point nucléaire la bu Iran day dóor rek problème mu côté militaire yi waaw loolu day firnde ne Israël du mës a def guerre nucléaire parce que guerre nucléaire ñoom dañ ko ragal te Iran dafa super puissant ci wàllu nucléaire te malgré ci embargo bi malgré ci pression américain yi fexe na ba taxawal ay nucléaire te Iran zone nucléaire bi mu amee moo moo bari doole te moo yaatu man naturellement xam naa ne côté boobu du ci xeex. te Benyamin bi bu amul sens dëgg yahut yi dañ koy rey correspondant Al Jazeera dafay wax ni équipe secours maanaam firaqul inqaz muy équipe bi nga xam ne kuréel bi nga xam ne ñooy xekk doomu aadama yi mënu ñoo yegg ci bâtiment bi Israël taal jamono bi may waxee mu rasila Al Jazeera nee maanaam benn correspondant bu Al Jazeera foofu ci Gaza nee na équipe secours maanaam kuréel bi nga xam ne mooy xekk li doomu aadama yi mënu ñoo yegg ci bâtiment bi Israël taal ci saw maqayamu jibaaliya te ay xale dëkk ak ay jigéen li am tey mu nekk fitna bu doy war Israël taal benn bâtiment foofu ci jibaaliya foo xam ne ay xale fa nekk ak ay jigéen ak ñoo xam ne ñu mage lañ donte tey nemmeeku nañ euh, waa Hamas defal ko benn dëgg sërëx bu rëy rëy boo xam ne ñoom it loru nañ fo lool ñoom waa <laughs> euh, Israël ngeen suivre vidéo bi ngeen déglu lettre bi nga xam ne waa jibaaliya bind nañ ko wax ak àdduna bi nekk lettre bu amoon solo nañ ko suivre lettre bu doy doy war la bu waa jibaal yaa wax ak àdduna bi te mooy ñoom dañoo sol seeni cangaayal dee su seen a joxe seen bakkan ngir jot seen alal ñu déglu xale boobu nga xam ne mu ci kaw euh, pousse-pousse bi comme genre cercueil bi mais teewul tànk ba damm mais teewul yaakaar naa ne dafa ne ñun ñi nga xam ne dëkkee jabel yaa sol nañu suñuy yëre càngaay ndax lu tolloog ñaar fukk fan juróom ñun ñu gaw lu lekk du naan du dara dugg taxul nag ñu ñàkk seen fit taxul ñu ñàkk seen sago mbokk yi li mooy ak njàmbaar jibaliya boobu Israël taal na fa benn immeuble immeuble bi li ci tiit lu mooy kuréel gi war a dem pour xeetli leen gis nañu Israël fi di koñe muy équipe secours bi nga xam ne moom ñoo a def pour sécuriser leen waaye teewul Israël moom ma ngay jooy ay néewam ndëgg sarax yi ma ngay gën a yaatu ci ñoom fitna yi ma ngay gën a yaatu ci ñoom waaye ñaan yooyu nga doon ñaan ak ñaan yooyu ñaan yooyu moo jara dooleel nag ñaan yi gis naa ne loolu jullit ñi war nañ ko gën a bari ñu ngi koy def nag waaye war nañ gën di ñaan gën di ñaan lu waaye mën ci ñaan ñaan ko te mbokk yi yàlla xam na ne bu ma sañoon ñi ko mën yëpp ñu jël trois cent treize courses yu jàng ko yéene ko waa Hizbullah def jiisu ku mënta def trois cent treize course def qul ja al xaq wa zahaqa al baatil inna kaana zahuqa waaye nag na ko jiitu nga def quinze fatiha quinze ayatu course yu fatiha seize fatiha dix sept euh, fatiha dix huit muy soixante six di allah nga toog dafa qul ja al xaq wa zahaqa al baatil inna kaana zahuqa nga yéene leen loolu man su ma sañoon groupe ci mbaaxu yàlla waaleykum salaam ñu jéem ko def yéene leen ñaan yàlla ci mbaaxam ak kàttanam na mu dimbale woon waa Badar dimbale woon ko waa Fatu Maka yàlla ko dimbale jàmbaar yooyu di Hizbullah ak ñu ànd ak moom ba Israël nërmeelu total Amérique nërmeelu Grande-Bretagne nërmeelu système bii ñu imposé ci àdduna bi te buñ ko te fañ jëm ñun ndox du fataa yàlla na yàlla jàppale jullit ñi ba yàlla kàttan waaye mu jaaree ko ci loxo mu xaawma bii nga xam ne tey dëgg-dëgg wane nañ jàlloor ak lislaam wane nañ ne yonjoxuñu wane nañ ne ñàkkuñu fayda wane nañ ne ñoom duñu yoor seen dox mukk di ko yoral ab yéeféer waaw loolu sant yàlla la tiital la ci lislaam faxr la mbokk yi bu ñëpp àndoon yoor seen doq yëkkatil boo gisee bokk na ci li ma gën a metti mooy réewu lislaam yu am doole yu ama am doole yu mag a mag a mag peuplé waroon mën a taxaw jël ay risque mu jaral leen ko tey ñoom pour sauvegarder seen i intérêt ñu ngi bàyyi waa seen di sànku tey wallahi al azim waxuma la ku mel ni tey Erdogan tey fi mu waroon a yegg tey loolu mais waroon na xoqatal Israël xëbal leen ba jëf te lu ko nëbb waaye li ñu gis ni doy na waar. waaw Seydou Hamza moom kay bu ñu am jàmm daal man daal loolu photo yi ak xeetu vidéo xaaral sax ma dugal vidéo yooyu yi rek ma neex mooy vidéo man moom bu ñuy dégg yuux yi rek moom moom <laughs> seen laqatu yooyu seen fitna yooyu ñuy nekkee vidéo su ma gisee sama xol bi ñuy sedd ci sama sama xol bi sedd waaye su ma gisee ñu nekk ci fitna. duñ mën a jëm fenn rek. ndeysaan ndeysaan am na solo de waaye lii de mooy dundal xol yi moom comme ni ko alquran woon waxee rek day feeñaati li naan laa yuqaatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin min waraay loolu la moo am si ñoom suñ borom ñu bind moo xam yahut te moo ñu wax ñun ñooy yahut comme ni ko Cheikh Maolana Ibrahima Niass doon waxee. ne yéen yahudi daal suñu borom moo ñu wax yéen yéen moo tax na comme histoire boobu muy nen ñuy faral di nettali mu noonu de te xam naa ne ko Alxuraan doon waxee fa innahum yaalamuuna kama taalamuun te ñun nag wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun incha allah xam naa ne day gën di métti moom suyeni si moom li ma wax faral di wax rek fee ñi nga xam ne ñu jàmm loolu suñu borom da kaa bindee ak loo nekk ak puissance ak ñu leen mën a jàppale donte ne ay malaaka nañ ñëw di la jàppale fekk yaa ngi tooñ ñu dëkk si jàmm ñu ngay tooñ di nekk si ay mënta nekk yene ànd ñàkk ñàkk nekk si jàmm rek sooy ni si nit ñaa ngi génn seen réew mi ay dëkk yu bari rawatina it buus dëkk yooyu min buus dëkk yooyu noonu frontière ak Liban xam na ay vingt quatre mille ñoo fa dëkkoon jamono ji mille deux mille moo fa nekk ñëpp génn nañ jamono ji seen abri yi ay nit kese la fees fitna gi ñu nekk se te ñoo liggéey te ñoo def dara te ñoo ko teg nit ñi nag ndax suuf soosu yaatu woon na bu ñu yéene woon nit ñi jàmm ñun ñëpp mën nañu fay dëkk benn dem suñu mu atte ñu suñu différence te yàlla nañu at si yërmandeem rawatina daal di nag ñu xam nit ñi jàmm di rey di def lépp rek moo tax sioniste yi fee ñi ngi xañ nit ñi jàmm mën ñu am jàmm ñoo ko tey sax. sëñ Ibrahima Diouf ñu ngi lay bu baax yaa ngi jàmm. tey de yaa ngi sulli mbootu gars yi <laughs> awoon naa ne foofu lañu jëm si façon yi moom saa bu ñu ko génnee da nga dégg ñuy teg si ne am na ñuy fi faat am na ñu fi blessé nangam sangam dañ ko nangu. xam nga li nga wax ni man fan yi déglu naa benn waay bu expliqué ne israéliens yi dañoo jël benn bâtiment mooy bâtiment yi nekk Gaza yi yàqu yoo xam ne ñoom bombat nañ ko mu yàqu ñu dem dugg fa di filmer seen bopp ne fii si euh, euh, kii bi la si Liban la c'est ñu ngi bëgg won ne. ñoom xaw nañoo mën a isbulaa ba am lu nangu si ñoom yàlla xam na ko maa maa ngi gis loolu <laughs> am nga yi ay tappale la yow frontière ba nga nekk mënoo fa bouger un mètre mënoo fa bouger depuis deux semaines wala trois semaines dàq ne la ba nga delaat fa nga nekkoon ngay capturer ay image di propagande te Cheikh Ram te tey yaa ngi génne image bu raar bi ne mu teg koppati si ndong gi <laughs> gannaaw jivi lay woo mooy jivi jaamkatu yàlla yooyu parce que déggoon naa ne euh, bëgg na def ay recrutement si ñoom mooy temps Gaza bi xeex bi tàngee dëgg ñoom ak Hamas mais ñooñu dañoo ban bañoon euh, ak ñaari ministre yu ngay laaj ci ñooñu pour man dalee na dàq man ñooñu dama leen gëj a dégg dañ naan génn lu bari nag autant mooy si Russie ak euh, benn xafir benn xafir ku ñàng sax moom itam kooku laa gëj a dégg ñoom ñaar ñooñu gis naa leen dégg trop te yaa ngi laaj ñu raar ñu gëj a génn sax. waaw loolu moom day day wane c'est que gàcce du leen rey gàcce du leen rey seen échec lay wane rek xam naa seen échec la lay lay wane foofu seen ñàkk génn bi parce que benn xafet bu nga xam noonu tàmmoon na def ay sorties tar di wax ay wax yu métti sax si si si Israël palestiniens yi. wallaay Seydi am sax te li ci gën a neexati sax mooy ñuy génn moom da lay wóor ni duñ gaaw del ci moom. mi loolu loolu rek perte gi muy doon ci ci ci ci économie réew mi rek perte gi mu cay doon ak ñi nga xam dañ daan ñëw ki rek maay saan benn vidéo benn siif di ci def benn jàngat comme ñi nga xam dañuy ñëw daan visiter visiter <laughs> dëkk beeg yooyu kenn ñëwatul waaw bu ci buñ ci boolee nag ñii di génn moom tax mu wër leen ñii moom seenu del si du gaaw daal sama xol bi ni muy féexee moo bu ma day gis yi daal vidéo yi daal su ma ko day gis mu tàmbalee démb ndeysaan <laughs> démb maa ngi gis euh, lu mel ni xeetu supermarché boobu ab xeetu supermarché xam ku nekk ca kaw euh, misile tàmbale kii affaire yi tàmbale yuux rek muy filmer nii ña ci suuf ci ci mbedd mi waaye fu ne waaye jaar fa da gis kii kii jugee ne romanteeg kee di daw kee jugee ne romanteeg kee may may may xool vidéo bi sama xol bi sedd. waaw euh, waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw euh, Serigne Saliou ñu boo xoolee bu baax sionisme lu tax mu xaw a développé nii sax ñoom seen lépp suñu kii la tourisme Israël boo xool li mu ndaw ndaw euh, at mi lim si lim si recevoir ay ndax seen géej yeeg franchement. niñ ko tabaxee sax ah, loolu la ñu ñi ñëwatuñ et dañuy gis ñoom dañuy dañuy tudd dañuy jékki-jékki tabax euh, benn village village boo xam ne dañ koy tabax noonu rek mu rafet ñu publicité ko dal koy xoyee européens yi nga xam ne ñu ngi si Belleville dèjà am nañ tuuti gëm-gëmu yahut si nga su ak sûreté googu nag Israël li mu gën a ñàkk si guerre bi sax loolu la sûreté gi xam nga ñooñu dëkkoon si sud Liban bi <laughs> ñu dëkkoon si sud boo leen jox ay milliards ne kaa leen dëkkaat fii dañuy xam ne ne toujours la 7 octobre mun naa dara seen kaw ñooñu du ñëwati mukk loolu lii nag mooy liñ gën a perte si guerre bi sax mooy sûreté gi giñ jaayoon sûreté gi jékki-jékki tabax benn village yombalal ko parce que dañ koy maye sax daa daan daan leen dikk àddina ak ak lu nekk nag loolu la dañ kaa ñàkk si guerre bi quoi mooy sûreté googu moom kay mi ngi bakkani sax te Israël booy xool presque bëriwut arme régulière parce que ay yow miy jàngale yow professeur bi yow sup mi liggéey supermarché bi yow parce que yaa composé armée bi quoi ñooñu nag léegi daal liggéeyatuñu réew dafa daal ba ne tot tot tot tot ñu ngi noonu de fitna gi leen di teg te égoïsme rek xanaa nii rek moo leen teg lii de kese kese waaw seen dëkk yooyu vide. nit ñi daw ba dañoo waxate ba nit ñi dëkkatu te loolu nag mooy seen objectif nee na dañu bëgg a daa daan Hezbollah pour foofu sûr pour nit ñi ñëw Dakar te bu yàlla dugaloon lool sax nit ñi dañu bañ du ñëw kenn seen ville yooyu ñëw da ngay dëkk si frontière Liban loolu la fekk te mu métti sew de day na war. ñu am sax ñu ngi jaar loolu seet naa ko gars yi boo leen dee gis da xam ni ñii demuk yéene la ñuy dem demuk du ma dellu si seen kanam yi ngay xool xam ni ñii demuk yéene lañ lañ la ñuy demee. yàlla xam na ko dem ngi ñi dem ñii demu waaw yow demu finna la ñuy demee koo xam ne da nga xam ne ñii moom la leen di delsoo di di caaxaan man nag loolu ma gën a neex ndax loolu la doole doole ju muy wàññi xam nga koo xam ni dooleem arme la kooku boo ko dee wàññi boo dee wàññi dooleem ci alal yow yaa ngi koy yaa ngi koy gaañ ndax ñoom seen doole jëpp arme la te arme alal la yow boo dee def feeg yaa ngi def loo xam ni yaa ngi wàññi alalam rek xamal yaa ngi koy gaañ te nii lii gars yi nii ñuy def nii da day laal bu baax ci wàllu alal Iran euh, fee euh, Israël ndax euh, ka masiyaan waa ji si yeeg xeet bu ne dama da dafa wane ni daan nañ fi ñëw xeet bu ne muy wane ni daan nañ fi ñëw di def ay visit waaye fi ne nii kenn kenn kenn doo ko gis kenn wàccutu fi ngir ngir ñëw nii day def ay visit boole kook ñoom ñi dëkke woon foofu ñoom ñoo ngi buub seeni bagage di génn dem. danga xam ni ñii moom du leen di dellusi du ay caaxaan waaw si xam sax ci oto ci oto lañ wàccee oto ma njëkk a dugal vidéo bi ma kii noonu ci bi ci lañ wàcc oto xam nga ñoom bu affaire boobu bu dee yóbbu ba oto dootul dawate oto yi taxaw bu leen fekkee ci digg tali bi ci tali bi dañuy wàcc raxas mooy ci digg tali bi oto yi dañuy taxaw ñu ñu taxaw ci dëgg tali yi bu dee ci ci mbedd yi la leen fekk tamit noonu dañuy dañuy taxaw ci digg yoon yi ñoom noonu la xamul loolu lu ñu ci noonu la def noonu waaw noonu la euh, ci yi lañ nekkoon ñoom affaire yi tàmbalee yuuxu lañ wàcc noonu kii ci tali bi noonu. waaw Ibrahima Lo loolu démb la démb man mi démb lañ ko def xam nga loolu mooy seen propagande bi ñuy bi ñuy def rek def nañ ko donc kenn dëkk. xam nga Ibrahima gars yi seen xeex ñi xam nañ ko boo xoolee seen xeex ay bombardement ay place yoo xam dafay fis ngir àdduna bi dañoo xam doole dañu puissant xam nga fekk ay école ay nangam nangam xam nga ñu bëree dawandoo yooyu la ñuy gën a bëgg mais di jamais fii nga gis ñu naan ñu rey nañ ay militaire u Hamas wala ay militaire Hezbollah doo koy gis wala ñu xool benn boo xamante dafa dafa nekk héros comme Hassan Nasrallah mais te boo xoolee Hassan Nasrallah pourtant c'est mm-hmm. un gars très pacifique nitu jàmm la woon mm-hmm. malgré daan na xeex mais par rapport ak tey ñu yor tey muqaawama bi tey tàngoor yu ñu àndal comme ay Yahya Sanwar ay Ismaila Ali ak ay Hassan Nasrallah tàngewu ñoon noonu mais tey boo xoolee ñu nekk biir Hizbullah surtout seen waa ji Naïm Qasim kooku ñoom tàngoor yu ñu am ñoom Hassan Nasrallah mais ñoom yooyu seen façon la maanaam temtamaar xeex rey kër yooyu yëpp propagande la <laughs> am na benn euh, responsable Hezbollah defe naa moo yor seen problème armée bi turam nag laa jàppul déggoon naa ne ñu ngi ko doon diir fan yi mu rëcc après bi mu demee ba Liban defee conférence de mu làqatu mu ngi xamal addina bi ak ñiy suivre guerre bi xam naa ñu mel ni ñun di leen wax euh, média liban yi propagande bi ñu nekkee maanaam ni ñuy dafee propagande pour Israël média libanais yi ak yeneen yu dul ñoom sax responsable la foofu si Hezbollah dégg naa ne porte-parole la xaw ma daal si armée bi mais jàpp ma turam nag fan yi rek mu ngi mu ngi génn di wax comme li nga wax nii rek di dëggal li nga wax nii wallaay conférence de presse la la def di euh, indi ay leeral si média yi nga xamante ni ñu ngi Liban di def ay propagande suñ Pape Cheikh Ibrahima Diop ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax sëriñ Saalix Top ñu ngi leen di ziyaara waat baax alhamdulilah waa xam nga loolu moom maa dafa bokk ci stratégie de guerre rek maanaam di xuppal ak ragalloo ñi nga xam ñoo féete ci dëkk ba ci di jële seeni nit bu ñu fàttaliku ni Turquie ci boppam moom itam yabal noon na seen bouquet bi maanaam muy seen navire bi foofii ci Beyrouth pour mu jëlee fa doomi Turquie nga xam ñoo fa nekk ba yóbbu leen fële nga xam moom moo di euh, euh, Turquie mais loolu yëpp aussi euh, xëy na bokk na ci protéger sa sa askan waaye itam nañu bàyyi xel ci nii li nekk Gaza bokkul ak li nekk Beyrouth li nekk Beyrouth ndax Liban pays la boo xam ni dafay pays bu am souveraineté maanaam réew la mu moom boppam réew la mu nekk ci sañ-sañu boppam am état boppam am itam beneen kuréel bu ne ci biir Euh, Liban muy Hezbollah boo xam ni ci kàttan selon recherche recherche yi mu mujj def ci seen kii mooy maanaam Hezbollah dañ ko considéré comme muy partie boo xam ne ci wàllu ngànnaay ci àddina moo fi ëpp ngànnaay ci lu dul réew moo xamante ni maanaam comme par exemple Hezbollah kuréel la boo xam ni Euh, organisation la boo xam ne addina moo ci ëpp ay ngànnaay ci organisation yi nga xam ne waxuma nag pays boo xam ne pays bu souverain la déedéet mais comme organisation yi comme ay Hamas wala ay yeneen i waa Iraq wala yu mel noonu ci seen euh, fasaayil yooyu Hezbollah mooy ki ci ëpp doole selon recherche yi nga xam ne doon naa ko def ci seen taxawaay euh, ci seen kattan ak ci seen i armement bi ci topp aussi ñi ngi wax ni maanaam Hezbollah dispose de Euh, vingt à quarante mille quarante mille missiles quarante mille missiles waaw ñeen fukki junni missiles euh, loolu du ay caaxaan loolu loolu du ay caaxaan am lu toll ci téeméeri junni combattant maanaam cent mille combattant moom la amee waaw te loolu itam euh, kon ne xam na ni du kàttan bu ndaw Israël ñaata ñaata la am def naa suma ma juumul xaw ma cent vingt mille lañu te ku xam ne Israël réewu boppam la pays boppam la bo buy defar ay armes am ay ngànnaay boo rek occidentaux yi euh, li ñu koy jàppalee mais boo xoolee ci wàllu soldat mel na ni sorewul ak xisbullah ni maanaam ci limub soldat li ñu soreele bariwul li ñu soreele bariwul kon xisbullah euh, jàppal ni bokkul ak Hamas bokkul ak yeneen fasaa yi li nekk fële ca euh, Palestine bokkuñu waaw ah, bokkuñu te dafa jekku itam Israël maanaam Hezbollah dafa jekku Israël da koo jekkoo noo xam ni Hamas jekkoowu ko kon Israël bu tëbee bëgg a def ni eh, maanaam <laughs> def Liban comme ni mu def Gaza loolu moom eh, d'ailleurs rek bi mu déclaré bi mu annoncé li nga xam moom mooy opération terrestre bi léegi ñaata soldat lañ ko reyal ñaata char de combat la ñu yàq ñaata avion eh, kii lañu lañu lañu la Hezbollah bombardé. ñaata dëkkam la ñu taal ñaata euh, israélien ñoo jógee foofu nga xam ne mooy Haïfa ak yeneen kono yi ñii génn réew mi Israël ci boppam la ñu génn ñii dem ci biir Tel Aviv nekk fa ñi nekk seen bunkër yi ñaata junni ñu bare baree bari ci ay junni waaw kon Hezbollah bokkul wax dëgg yàlla ak yeneen yeneen kii te itam bi ci topp mooy état bu Liban itam. malgré nag état bu Liban ci Liban ci boppam maanaam Hezbollah moo ko ëpp ay ngànnaay moom waaw moo ko ëpp ay ngànnaay moo ko ëpp itam ay soldats waaw jëmme Hezbollah moo ëpp maanaam armée libanaise Hezbollah moo leen ëpp ay ngànnaay moo leen ëpp ay soldats moo leen gën moo leen gën a xam itam stratégie de ger bokkuñu gën a jekku Tel Aviv def ko nu mu ko neexee ci kàttanu yàlla waaw Iran moom xam naa ne du ci gaaw a du ci gaaw a dugg li fi ak Israël laalu ko moom. waaw ah, waaye xusiyuuna yi ak waa iraq muy euh, muqaawama boobu nekk ci iraq moom itam macha allah ñu ngi def ay liggéey yu ama am solo boo ko xusiyuuna ñoom fexe nañ ba euh, baxrul ahmar moom teg nañ fa tànk moom waaw kon mënta yombee maanaam songuk Israël Liban mënta yombeek moom comme ni mu yombe ci Gaza. Seydou Ndiou ba wax nga dëgg démb démb laay dégg lu mel Euh, moo tax du yomb si moom de parce que responsable yi nga xam noonu xam naa ne ñooñu ñoo ko jigoon ñoo tenoon si moom sax pour mu xaw a sedda surtout nayu xaasim kooku moom dafa kooku tàng na moom taman euh, Hamas wala Hezbollah seen soldaar man loolu dama dama dama dama koy laajte lu bëree bëri ndax ñoom rayal na leen benn soldaar maanaam pour nga gis soldaar Hamas bu bu Israël ne kii baa ko fàtt wala Hezbollah loolu dafa jafe trop man gisuguma ko moom dégguma ko fen man dafa may jaaxal sax des fois man Israël moom ñi muy xeexal est-ce que mos na rey si ñoom cinq soldats. daw di ko làqatu ak tiyo yi nga xam dañoo def ay ndox yu bon ak ay kàmb yoo xam ne ay genre tunnel la mooy yooyu xam sama noonu foofu yëpp ña ngi fay daw di làqu fii xool ci ci rëbooru tali bi la yiy làqu ngir bañ waa Hezbollah fekk leen fa